ay ca mu ngi noonu nee la su baaxee ñu dem var waaye jàpp na ni var du doy waar ndax moor xobar xobar anti stress mooy sunu waar ah lépp fii lay xewee ah yow mi nga xamante ni dangaa bëgg kontaan reetaan mel ni ku nu cokotaan si pokotaan leer na jaara bu sa borom poroxaan ah nee naa la lii bi fenn la muy Diassigui TV macha allah ah ndeysaan dafa am benn waay boo xamante ni eh, man ni ma leen ko waxee rek anti stress la damay toog di leen xalaatal di leen créer di leen indil ngeen di bég kontaan reetaan mel ni ku ñu coxataan si poxataan léeg na jaaxa bu so borom poroxaan dafa am benn waay boo xamante ni eh, dafa juddu rek jaaxal famille yépp waaye ki mu gën a jaaxal mooy papaam ak yaayam ak seen bon bi moom daal kenn xamul daa juddu am benn paabu dee si biiram bi kenn xamul daa juddu am feebaru téeñaa te kenn xamul daa judd ànd ak rab mais daal kenn comprendul kenn kenn comprendul jour bu mu juddoo yow lañ defal yaay ji ruy yow si hôpital bi yow xam nga rek boo soog a accouché dañ lay indi ruy pour mu taxawalaat sa sa sa sa siddit yi sa yaram mën a dëgër ndeysaan mu indi yaay ji ruy bu bëri karaaf man metti ruy yaay ji génn di doxantu ñëw fekk ñu ne tellu ruy ba yaay ji tiit ne fii benn sage-femme dugg fi man rek maa fi nekk mag sama doom ñu naan ruy bi fekk xale bi nee na tulli ruy ba toog xaar leneen yow yaay ji ko mu xam sa yow mu jékki-jékki ne ceppet génnaat di tuur ndox fekk xale bi naan mu xam sa bi yaa ji am benn cas boo xamante ni moom daal xelam dalu daal bëggul wax kenn dara yaa ji ñibbi génn na hôpital dem këram ñu defaral ko som bi mu ne faw ma xam kuy naan lekk bii kan moo koy lekk parce que lii bii mënta lekk yaa ji génn bàyyi fa som bi bi di yënd su fenêtre bi luy bi lii bi ne tëllit ba yaa ji am ordre nag jël liir bi yow wat ko ndal bu mu set jël ndal bi diw ci qualité boot ko ay deux heures naaj bu tàgg jër mu boot liir bi yow ci mbedd bi di joxantoog moom benn paa romb ko rek mooy paa yu am yërmande yooyu rek ne ko ay soxna si soxna si yow tamit xanaa da fàttali liir nga yor ak naaj bu tàng bii rek xale bi génne bopp bi ne sombi bee tax mu mooy tottiire di <laughs> yow yow yow yow yow jour tuddam yow yow jour tuddam yow mu lekk six mën laax yi lekk sept mën a ceeb yi huit mën tufe mu lekk lépp yow et eh, ñii na dañ koy rey ñii ne duñ ko rey ñii ne dañ koy rey ñii ne duñ ko rey léegi ji jabaat ji mer na jëkkër ji mer na ñu ne nañ ko yóbbu hôpital pour xool ko ñu yóbbu ko hôpital yow gars defal ko rajo yooyu defal ko échographie defal ko test diabète defal ko test sida defal ko xool suukaram defal ko test cancer def ko lépp yow ñu xool ko médecin bi génnee document yi nee na jëkkër ji ne buy na gaaw rek waxal ñun kay garab bu mën a doon nañ ko jëli

ñu foog ni day kii mu jàllale ween bi si ginnaaw boobu ween bi gudd xale bi si ginnaaw la nekkoon xale bi màgg yow yow dëj xale bi dafay dem mais bu demee dëj du bokk kenn palaat moom kese mooy bokk te mana yi lañuy ñuy bàyyi ba lépp bañ yàq lépp ba pare desit yéeg yooyu lañ koy dese lañ koy jox mu dóor ko mbete Omar Vandam te du Omar Vandam ma dajeeg moom tudd mu lekk quinze palaatu laax yow xale boobu noonu tey mooy lëmbi cité millionnaire bada wàññi lekk bada wàññi lekk léegi ñu def defaat ko te si lu màgg ndekete daa am benn famille bu dee si biiram yow benn paa moo dee si biiram ak benn mère ak doomu paa bi ak gerbaatu paa bi ak setu paa bi cinq personnes ndekete lu mu lekk famille bee koy lekkaat yow <laughs> ki nga xamante mooy kaa communautaire nag kooku moom wax dëgg yàlla moo moo moo moo raw ñëpp moodu la moodu day crise bu kontaanee day crise su meree day crise moodu buy sourire sax yow bu la gisee nga kontaan sax day crise bu la gisee nga mer sax day crise te bu crisee mën naa dee moom Moodu mais Moodu yow da ngay crise doo yem sa koy déedéet dafa ko de day carte xaalis yow benn jour moo doo carte ba gañe cinquante millions yow eh problème am na kenn moo war a wax Moodu da ngaa gañe cinquante millions soo ko ko waxee mun naa kontaan ba crise femme bi yor ticket bi téye nii ticket bi yow ticket carte bi yow ne est-ce ko wax imam imam waxal ma ko imam jàng na dina ko dóor ay doj femme bi wax ko imam imam wax ko chef de quartier chef wax ko euh, euh, chef de canton chef wax ko service d'hygiène wax ko eaux et wax ko sapeur pompier wax ko police wax ko whatsapp wax ko instagram wax ko twitter wax ko réseaux sociaux yëpp ñëw si jaasi gi TV ne ñu kaa leen couvrir leen ma lii parce que Modou mi suñ ko nee gagné nga cinquante millions attan naa crise léegi nag woo nañ sapeur yëpp pour bu crise woo nañ police yëpp pour bu deewee ñu xam ne ñun rey ñu ko moo doon kàtt ba kontaan dee imaam di ko dóor ay aaya naan ko yow Modou lan la Modou inna lazina amanu war a xëy yàllaaw yow lan la Modou eh kulli man alayha faan lu mu sa tooy wow na Modou lan la Moodu kulli na seen saa xeetu mawti bakkan bu ñoom dund dina ñam dee yow Moodu yow lala Moodu tey bu la yàlla defoon nga am cinquante millions nooy def Moodu defaraat toogaay bi nga yëpp sourire Moodu kontaan na ko imaam su <laughs> ma amoon cinquante millions tey dama lay may vingt millions imaam kontaan ba dee. waaye damay kontaan reetaan mel ni ku nu coxataan si pokotaan leer na jaara bu so borom poroxaan dem ba Kaolack nangaan ah. eh, damay jaar si loxo ki nga xamante ne mooy ndaw a jaw ah ndeysaan man dama laa bëgg ah dama laa bëgg ah, bëgg naa la. ah chéri paakoli yàlla sa jàmm yàgg yaa maa bëgg ngeen kontaan reetaan rek mel ni ko nu coxotaan si poxotaan leen na jaara bu sa borom poroxaan ndaw yow da am baax jaw nga sant jaw faraak ma jow xoor latt jaw ma jow xoor demba amina ak baaba amina baax na bàqub lem bu du bàq si bàqu wax sa bu bax baxi jubale baaxeel yàlla na sa jàmm yàgg ah waaye li tax ñuy gën a bëgg mooy macha allah sunu sunu su sunu PDG bi hmm? yow sa yoon bi amul tànku ginnaaw maa yërëm sa noon yi sëñ Modou la jaan yàlla na sa jàmm yàgg mu ngi noonu ah nee naa la yow mi nga xamante ne dangaa amee jàngoro hémorroïde ballonnement palpitation rhumatisme yaram buy méttee sëriñ Modou la jaan ah moom mi nga xam ne yàlla da koo may ah, yàlla da koo may xam-xam macha allah mu mu bëgg koo partagé waa bi ñi nga xamante ne dañoo feebar ñi nga xamante ne dañoo ah, dañoo dañoo néew kattan moom sëñ bi daal moom dalay faj ci anam wu neex ndax yàlla da koo may te da faj ak xol bu sedd moo tax sa xol day sedd nee naa la dat bi benn dat la ah, mooy fële nga xamante ni mooy ca Pikine xéewal gi ah cent pour cent bégee nee naa la loolu vendredi la dix-huit euh, décembre entre bi cinq mille la euh, ak deux mille francs yow ñëwal nga kontaan nga reetaan boo fa jugee da ngay dem si la neuf ak Mor xobar xobar ah anti SRS kaay reetaan show fan lay xewee ñu ne sa foyer des jeunes bu amoo kat ba prévente mille francs euh, jours yi mille cinq cent réservation plus consommation deux mille francs ay ci infoline 78 239 00 73 77 707 95 37 wala nga ñëw tamit ci 77 451 32 33 Serigne Modou Ladiane yal na sa jàmm yàgg.